waaw waaw c'est ça donc euh, lu tax ma euh, gën a wax ak yéen sa moo di ñun euh, depuis 2008 ba tey ñu ngi nekk derrière son excellence président Macky waaw je milite à l'APR depuis 2008 j'ai ma carte de l'APR de carte de membre Et puis, euh, j'ai dirigé aussi euh, la commission communication et sensibilisation de la campagne de président Macky Sall 2012 euh, mais nous avons ma nous fee ñëw mooy euh, ñun bañ falloo bu léegi dafa am engagement yo xamantene ne parti bi tout son excellence monsieur président Macky Sall daf ko c'est euh, sama endroit ak ci endroit ñu may jappalé waaw parce que nous mu falloo bu mais fu nañu en rapport avec Diène Farba Sall ne ko né konaate mii di responsable politique APR bu ndoorom nga lépp loo xamante ne soxla na ko ci politique am ak yëpp da ngeen ko ci ah, jàppale waaw entre temps kooku monsieur le ministre daal waaw ñu toog ba quelque temps après ma bind président Macky Sall lettre xamal ko ne ndoorom avant ñuy falu jafe-jafe yi nekkoon nag yooyu yëpp amul benn changement bu ci am waaw mu ma la doon rappelé nag sama doléance ma la waxoon waaye dama tontu ne ma waaw d'accord jot naa bi ah Omar Youm daal di bind lettre bi ne ma président nee na jot na sa lettre bi waaw li nga ci wax yëpp dégg na ko dina la yooyu yëpp mais depuis 2016 ba tey bi ñu tontoo ci lettre boobu amul lépp loo xamante ne suite la boo xamante ne am naa ko ci waaw yokkuñu ci dara ci leer amu ci kii te fi ne nii hmm, suñu kàcc di moom mooy deuxième grande circonscription bu Kaolack mooy bureau de vote bi nga xamante ni moo ëpp importance au niveau de la commune de Kaolack à part Médina Baye bi voilà moom mooy deuxième. waaw te nekk na euh, euh, fief boo xamante ne parti opposition yi ñoom ñëpp dañ cay def mu mën pour mën cee teg loxo waaw parce que ngir la fa nekk ci population ak habitant waaw léegi nag bi nga xamante ne fi mu ne nii euh, wax naa ko président Macky Sall ma ne ko ndooram jafe-jafe yi nekkee xam nga nan fexe def cee def effort ngir ko amee moom bañ koo délégué benn responsable politique xam nga parce que fu mu ne ba seet euh, nawet bii di ñëw amoon na ay engagement yoo xam ne ministre ay ministre ñu fa mooy ay wax nañ ne mois des élections nawet bi fi mu ne deux ci des ah, ba tey benn travaux commencé ko te waxoon nañ ne bu responsable politique bu Ndorong nañ la jëm a fexe am nañ la euh, jàppale comme ça nga mën cee jàppale say militants dégg nga fi ne nii ba tey ba sànq fi mu ne nii amagul benn responsable politique boo xamante ne jox nañ ko ci ndombo tànk wala. jox ko ndimbal goo xam ne dinañ ci mën a jàppale parti mën ci jàppale militant yi parce que soo xoolee yeneen quartier Kaolack yi am na ay responsable yu fa i militant mais ndoorom ñi nga xam ne dañ fay jaar rek nga xam ne dinañ war a mën a assister pour ci seen i doléance seen i soxlaal yu mel noonu ba tey amagul ci kenn koo xam ne waa ndoorom mën na ñëw wéeru ci moom pour suñu amee soxla ay jafe-jafe mën ko gis ay biram waaw moo waral fi mu ne nii may lance appel son exemple su président Macky Sall ko fi ne nii élection yi fukki weer ci des jege na dégg nga li ma koy conseillé mooy suñ secteur boobu na ko jël en waaw def ci li nga xamante ne moom moo war su ko defee léegi bi ma gañe ko day yomb mais su ko bàyyee noonu ne waaw fi mu ne nii comme que ñun fi mu ne nii am na xaar boo xamante ne soo ko defee ba am na moment yoo xam ne da ngay dem ba mujj da ngay mujj xaaj waaw parce que loo xamante ni six ans benn ko nekk au pouvoir dégg nga waaw euh, moom xamante nañu moom bu baax photo yaa ngi feeg ñu ànd ak moom lépp a ngi waaw même jabaram sa euh, bi mu ñëwee woon ko wax doon inauguré këru Gan Médina Baye bi dégg nga jox naa jox ko moom gisee moom wax ko li nga xamante ne mooy doléance suñuy doléance mu su ma delloo Dakar naa la ma recevoir moom Marième Faye Sall audience boobu waaye ma promettre dina tey waa sànq maa ngi xaaral mu jox ko ma tey amagul président Macky Sall nag ñu ko mën a xamal moo di fi ne ni élection yi si kii fee weer ci des waaw li nga xamante ne ñu ngi ko doon xaaj ci moom te mu xam ko te ñu jox ko woon ceeb ma bind ko ci lettre wax ak ma ba mu tontu ñu fekkee ne def ci benn effort fi mu ne nii ñun dañuy jël suñu responsabilité parce que bari na parti yoo xamante ñu ngi ñuy jox ko man di may woo di wax ak man dégg nga pour que ñoom tam yàlla ñu jàppale ñoom ñu changé ñu suñu condition de vie waaw léegi nag ñun moom li wër bu wër mooy daal fi mu ne nii moom. fii ak ak ah, ah, bu néew xam nga fekkee ne amul benn réaction wax ne def def ko ñun dinañ gën publiquement def suñu déclaration xam ne ne ñun dinañ eh, gën a définitivement euh, à sa partie là nga xamante ne ñu ñoo ko doon contrôler foofu ca ndolom dégg amee ko fa dafay def meeting ak activité yi ak militant yi dégg nga tey ñun suñu ba fa yor bañ yor fay nii ca ndolom du base caaxaan ña ca bokk tabaarkàlla ay groupement de femmes ak jeunes ak léppam ci biir mm. waaw euh, luy seen problème rek moo di dañoo amul ñu leen mën a taxawoo responsable yi fa nekk amul kenn koo xamante ne ah bu ak responsable APR bu ndorong la boo xamante ne euh, nguur gi defal na ko dara ñun lu ñu am mooy benn conseil municipal te bu kooku sa conseil municipal bu PDS la waaw mais côté parti au pouvoir amul benn boo xamante ne du APR wala du bennoo boo xamante ne am na ndomba tànk bu euh, ko nguur gi defal foofu na ci au niveau de ndorong te loolu sincèrement parler nekkul lu waaw wallaay parce que fi mu ne nii société Bassette aussi côté assainissement Ndorong ça fait défaut le réseau de l'ONAS dafa restreint su nawet jotee ak euh, nit ñi nga xamante ni ñuy fóot seen kër yi jël ay pan di koy tuur si bi soo leen waxee ñu ne amul fu ñu ko tuur te à juste moo tax fi mu daal moom li ñu koy ñaan mooy su nga xamante ne bu dee diir bi dafa gàtt fu ñu mëntee def ay travaux euh, pour raccordement wu affaire on a réseau on a sax ay canalisation na fexe moom recevoir ñu. dégg waxaat waa Ndorong loo xamante ne suñ ko déggee seen bopp xëy na seen xel dal ba nga xamante ne élection yi ñoo dañ ko mën a wateel mais su leen bàyyee noonu mu ñuy rek ah defe naa ne su euh, wate bi di see ñoom dañ ko seen mer dañ ko wan ci kàtt yi. waaw c'est-à-dire que euh, affaire bi vraiment métti na ñëpp parce que euh, mbir mi. commencé wu président Macky Sall depuis au temps de l'ex régime bu Abdou Diouf ak Abdoulaye Wade mi ba ñëw ci mom waaw mais lu ma ko ci conseiller moy comme que fi ba dina ay institution yo xamanteni ne indemnité yi leen ñuy fay ah, indemnité de section ak yu mel noonu ñëpp xam nga li leen ci fay fa tabaarakalla euh, xaw takku légui li ma ko doon proposer moy moy di doon indemnité yoy fondre ko ah daal koy def ci salaire enseignant yi nga xamanteni ñom comme que. alignement lañ lañ laaj comme ça léegi à partir de ce moment là su indee alignement boobu nga xamante ne ñoom moom war leen tax a bañ a jàngale ji mel noonu ah, dana xaw a tane comme sa élèves yi mën na reprendre cours yi mën na reprendre ba après les élections nag moom mu jéem a xool nag naka lay eh, doxalee bu fekkee ne dafay fondre à tous les salaires di commencé waat lépp à zéro bu fekkee ne aussi ah, leen di jéem a xoolaat bi nu mu leen ci mën a intégré pour mën leen eh, yokkal seen salaire yi tamit ça va mais actuellement. ce qui est urgent mooy fi mu ne nii comme euh, que institution yëpp ci ay parti au pouvoir lañ bokk ci parti am lañ nekk na fexe seen indemnité yi mois de ko jéem a fond jéem koo yokkal les a reprendre les jot na te à du mois de mai soo xoolee côté sud bi taw bi dafay commencé waaw dégg waaw fii xaw a tane rek mooy côté centre bi jëm côté Dakar noonu ak côté nord bi waaw mais côté sud bi ñoom à du mois de mai. dafay taw te loolu moom su fekkee dañoo bëgg a def prolongement wu année scolaire bi bu mu dugg ci vacances yi dañu arrangé waaw li ma koy mujjee wax rek mooy fi mu ne nii moom très sincèrement parler euh, dafa jot mu ne nii pour mu gëstu ñu ah, jéem a fexe ba nga xamante ne ñun ñi nga xamante ne ko ndoorom boobu ba dara bul dara boobu falawul xam nga na fexe gëstu ñu jël euh, secteur euh, suñu quartier boobu ba mai waaw da nga xamante ne bu fekkee ne travaux yi mënu ko faa def actuellement na fexe responsable ñi fa nekk nga xamante ne ñoo nekk à terre depuis ba mu nekkee dans le temps de l'opposition doon ko jàppale na fexe promulguer bi leen jox leen ndombo tànk wala loo xamante ne dañ ci mën a jàppale militants yi te su fekkee ne aussi mën nañu recevoir audience tam wax ak ñoom mu wax ak ñoom ba nga xamante ne dina mën a dalal seen waaw di koy ñaan aussi madame la euh, la première dame Marième Faye Sall moom tam suñu mën a recevoir audience waxtaan ak moom mu wax ak ñooñu ba seen xel mën a dal dana ca baax parce que fa tabaarakalla yi fi fi mu nii àpp bi dafa gàtt dafa jege waaw te wax dëgg yàlla ñi nga xamante ne ñoo ñoo euh, xaw a mer foofu dafa bari waaw te man mii nga xamante ne maa fa nekk sa principal bu APR bi foofu xaw ma su may wax ak ñoom parce que su ma waxee daaw promettre ngeen ñu fi lii ba fi nawet baa ngi ñëw dans deux mois ñu dugg ci nawet yi dégg nga fi doo xamante loolu leen wax waaw te loolu fi mu ne nii ko bàyyi mu continuer élection yi suñu ñëwee dañu koy wan ci carte te loolu wóorul mm. waaw na président jël solution pour urgent pour suñu côté boobu muy dooroon nag ci joxoon ñun